asalaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di ziar di leen kontaane di leen ragal di leen jox seen wàccuwaay ah wala gisee ñu def vidéo bi nag dañoo dëgg ay xibaar ci ay suñu ay nawle suñu ay xarit suñu ay am jàmm dañuy wax ni kii euh, boobu dañ ko dégg gis am nañ ko dégg ci ay affaire de manifestation ay déet yi affaire dëgg yàlla ak suma responsabilité ak suma personnalité dëgg yàlla euh, dépassé naa fu may liggéey nag ci yu mel di rassurer sumay nit di rassurer sumay supporter samay xarit samay am di jàmm ñi nga xam ne tey bu ñu déggee ci man safaan dañu am leen naqari lool. pour nag euh, présentement maa ngi ni tribunal bu Pikine pour euh, euh, jàppale suma frère Bébé Saloum bi nga xam ne dañ ko interpellé depuis fan yi pour fexe mu génn bi mu nekk dëgg yàlla maa ngi ziar ñëpp di kontaanee ñëpp di tatagal ñëpp ah di leen wax nag loolu gars yi di wax dara dara dara dara amewut à l'instant maa ngi ni tribunal